واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا mbokk yi ni bàyyi xel fu mën a nekk ci réew mi wala bitim réew tey bàyyi xel seen seen bu am solo bii muy la grand secret wolof ñoo ngi leen di waxati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginaaw bi ñu santate yàlla ya, ya julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ndokkeel ak jaajëfal mbooleem mbokk yi ni bàyyi xel ak fun mën a ne mbokk yi dikkate nañ ak yéen ci seen seen bu am solo bii muy le grand secret wolof parce que yéene leen a indilati dana njariñ yu am solo te njariñ loo xam ne képp koo xam ne da ngay faral di tukki fexeel ba am secret bi incha Allah, rabbi lu am solo la ay ba ñuy gëna sori rek dañuy wax yow mi gan ci pass bi bu fekkee ne abonné ko ñoo ngi lay ñaan nga abonné te sem vidéo bi partage ko mu gëna yaatu ndax mbolem vidéo yi du ko ci sen bi yépp ay vidéo yi njëriñ kessa la te moom lu mu gëna yaatu rek ci di wax yow mi nga xamne da nga bëgg def lu sét wala nga bëgg def lu listixaar dañuy def seetu ramlu à distance dañuy def tamit listixaar à distance mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek ci réew ta bëgg ko la defal benn ci ñaar yi man nga ñu contacté ci numéro bi muy 77 684 28 28 incha allah rabbi dees na la defal listixaar bu leer nañ incha allah am bokk yi nga xamne dañuy tiwoo garabi katani mu garabi muy garab yi mos disponible na jamono ji ñuy wax ak yeen kep ko xamne da nga yittewoo bokk ci garabu whatsapp bi tamit man nga ñu contacter ci numéro bi waye nak groupe bi amna ay sartu yu ne ci bokkee kon mbokk xana dañuy ñew ak yeen ci secret bi ñu leen indil tay bokk yi nyari ñaari baat la waaye muy ñaari baat yu ama am solo te ñaari baat yoo xam ne képp koo xam ne ab tukkikan nga war nga ko làmboo war nga ko fexe ba am ko xam ko day baat yoo xam ne képp koo xam ne da ngay tukki wax ko insha allah rabbi di nga dem ci jàmm di nga dikkaat ci jàmm baat yi mooy yan muy di wa in lam tafxalu walan tafxalu guddut lu gàtt la waaye booy génn taxaw ci sa buntu kër fexe ba wax ko nga raay ko ci sa kanam di nga dem ci jàmm di nga dikkaat ci jàmm fa in lam tafxalu walan tafxalu fa in lam tafxalu walan tafxalu nga fexe ba wax ko ñetti yoon raay ko ci sa kanam dem lii de boo ko waxee mbokk yi foo man di dem di dem ci jàmm di nga dikkaat ci allah amone yene partage ko ak yeen dara ya, wax yow mi bëgg def lu sét wala nga bëgg def lu listixaar man nga ñu contacter ci numéro bi inshallah dina la defal bu leer wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëgen jëf